Eh, ci eh, année bu mujj bi daanaka bi ñu leen tabee ba tey eh, beaucoup de critiques benn bi ñu invité Ismaïla Madior Fall maa ngi ko doon laaj ne ko naka ngay dundee critiques yi nga xam ne souvent nga dégg ko donc gouvernement bu bari coow parce que li mu fi fekk la ay dossiers judiciaires yu concerné des hommes politiques politique est-ce qu'on peut dire qu'ils ont fait le job ah. qui dit pour lequel. peut-être euh, peut a joxaat on les avait mis à beneen image une autre légitimité parce que li ñu bëggoon def nañu ko pour man loolu la on peut pas peut-être continuer bàyyi leen foofu euh, pour plusieurs raisons. parce que ñu ngi jëm ci une élection présidentielle faaw ñu dalal askan wi faaw ñu ne élection présidentielle bu apaisée lañ dem bu transparente faaw ñu bañ a jox opposition bi fu mu jàppandiku wala fu mu jëfandiku ba gis ne dañuy organiser élection yi te du jaar yoon et la personne de Antoine Diome le nom de Antoine Diome souvent boo ko déggee ci opposition bi ni ñu koy tuddee mooy gobe wu ñu doxalinam depuis bi mu nekkee ci poste ministère ba tey est-ce que Sidiki au ministère un homme discret ministère des affaires étrangères c'est normal parce que ministère la boo xamante ne oui ministère la boo xam ne wax ji peut-être mënul bari la la grande muette bu ñu koy wax euh, je pense que en premier lieu euh, c'est c'est l'armée c'est les forces armées donc ki ko jiite mënul nekk koo xam ne ku bari wax mënul nekk di di tontonte donc foofu xëy na indi fa Sidiki Kaba day nekk koo xam ne mën na dalal moo tax ma doon wax tout à l'heure ne dindi fa Antoine Diome ki est très contesté dem teg fa Sidiki Kaba c'est pour apaiser le climat bi nga xam ne ci la ñu nekk aujourd'hui ci jëm ci élection présidentielle euh, peut-être pour joxaat également beneen beneen beneen virginité yeesalaat jox joxaat eh, eh, moom Antoine Diome mu dem noppalu jox ko pétrole jox ko gaz récompensé ko parce que en quelque sorte ñi fare ci oppose mën nañ jàpp ne liggéey bi ñu ko santoon def na ko ni mu waree ci li nga xam ne moom la ñu fi gis récemment beneen bi wax nga ko tout à pour apaiser le climat ñu teg fa ki nga xam ne moom mooy Sidiki Kaba peut-être dégguñu ko ci lu bari ci li nga xam ne mooy les derniers événements yu fi am eh, ci benn kaddu boo xam ne yëkkati na ko bu ñagas wala mu waxee noo xam ne di nga sentir benn benn kuy xuloo wala kuy xëccoonte ak ak l'opposition donc il peut quand même apaiser beneen bi dañu jëm ci élection présidentielle autant soxla nañu koo xamante ne dafay dalal pour l'organisation des élections on a besoin de quelqu'un qui a quand ku am verve et loolu boo koy wax élection yi ñu jëm dina am contentieux avant l'élection bu ñu jëmee ci parrainage bu ñu valider certaines candidatures bu ñu invalider certaines candidatures et loolu dañuy soxla ministre de la justice boo xam ne euh, ku ku ku ku ku ku ku saf làmmiñ ñu baal ma ci kàddu gi et ku wax ay Tall Sall de sa formation bi mu nekkee avocate ku ko xool xam ne quand même ku am capacité la ci li nga xamante ne moom lay wax ci ràññee li muy wax ci mën a wax porte-parole du du du du PS du gouvernement de Diouf de 98 en 2000 ministre de la communication également de 98 en en 2000 xam nga kooku kon mën na wax. xam na lu muy wax et boo ko toppee ci derniers événements yi fi am muy lors des événements de mars ay Tall Sall moo njëkk dem France 24 ne y a des forces étrangères au Sénégal boo ko xoolee ci combat bi nga xamante ne dañu ko teg peut-être ci diggante lu ñi far ci nguur ak ñi far ci ki nga xamante ne mooy opposition ci l'affaire Ousmane Sonko bokk na ci rare ministre yoo xamante ne dafa jël position te lëbbatuwul te làqatuwu ci ci à chaque fois li nga xam ne moo ci ba ci récemment moom moo tontu euh, Juan Branco ci li nga xam ne moom la waroon def plainte ca cour pénale internationale donc loolu mën naa jàpp ne euh, bokk na ci ñu tax ñu teg fa ki nga xam ne mooy Aïssata Tall Sall ca ministère bi ñu dénk wàllu justice parce que fi ñu jëm justice dafay am solo conseil constitutionnel mooy tranché le dernier mot lui revient ci biir justice la bokk un ministre de la justice qui peut-être va faire le tour des plateaux pour leeral certaines décisions prises par le conseil constitutionnel ak la direction générale des élections euh, jàpp naa ne bokk na ci li tax ñu teg ko fa pour yenn yi nga xam ne sénégalais dañ ci soxla réponse yenn yi nga xam ne dañ soxla leeral yenn yi nga xam ne dañ soxla tontante également dagg sante en quelque sorte euh, ci li nga xam ne moom lay def parfois ak ñi nga xam ne ñoom ñoo fare ci opposition bi et que elle n'a pas euh, froid aux yeux Aïssata Tall Sall li mu bëgg wax moom moom lay wax je pense que bokk na ci choix bi nga xam ne def nañu ko ci ñoom donc d'un côté pour apaiser euh, ministère de l'intérieur pour rassurer l'opposition que ne vous n'avez pas un ministère chargé des élections oui mais vous avez quelqu'un boo xamante ne ku ku dal la quelqu'un boo xamante ne déggaguñu ko ci yenn yi muy Sidiki Kaba mais de l'autre côté un ministre xamante ne moom dina mën taxaw dépp décision bu ñëw dina ko mën a justifier dina ko mën a tontu et aussi dina mën a expliquer les les Sénégalais. alors euh, Léopold Tamba le premier ministre euh, disait euh, tantôt bi muy jël euh, kaddu euh, que ni bokk na ci li li nar gën a nekk seen objectif le coût élevé de la vie. ñuy fàttali ni ci gouvernement euh, bi bi bi mujj bi nga xam ne euh, moom la Macky Sall euh, génne ajuma bi ñu weesu il s'agissait également de prendre à bras le corps cette question du coût élevé de la vie amul lu ci changé ci coronavirus la ñu jóge dal ci euh, guerre euh, Ukraine ak Russe te ñu gis ni ci Sénégal lu ëpp loo xamante ne ni moom la ñuy jëfandikoo ci wàllum consommation lu ñuy jëlee bitim réew la taxi yi yokk na coût fret bi yokk na ñun amuñu doole boo xamante ne ni on peut influer sur le prix euh, de ces de de ces denrées qu'on importe de de de de de l'extérieur ñu ngi wax ci wàllum électricité ah coow baa ngi am Sénégal gis nañu ni courant bi yokk na ban levier la ñu mën a am Euh, pour euh, mën a réussir combat boo xamante ne ni lajj nañu ci ba pare te dara euh, beesagul li fi amoon moo fi nekk ba tey xanaa peut-être coronavirus bi moo ci génn. waaw li fi am rek moo fi nekkaat ba léegi ñu ngi wax sànq ci kaawu Antoine Diome mais Antoine Diome c'est l'agneau de sacrifice. ndax lan nga wax loolu balaa ñuy dellu si ci question bi. waaw parce qu'il a toujours accepté de faire le jeu de Macky Sall. il l'a toujours fait il est au devant Macky ne l'a jamais ne l'a jamais peut-être dit des choses yoo xam ne ni c'est parce que tout simplement il lui obéissait du doigt et à l'œil voilà ce qu'il a fait peut-être que aujourd'hui si dañ ko transvasé yóbbu ko jox ko beneen poste c'est parce que tout simplement il s'est dit ne que moom il a peut-être peut-être que moom tamit il a eu mis il mis la pédale un peu un peu un peu de manière assez lourde donc euh, euh, ci affaire bi nag forcément il faudrait que ñu jox ko benn poste ministériel qui lui permettrait maintenant mu accomplir li nga xam ne ne moom la war a def parce que personne ne dira ne que Antoine Diome n'a pas fait un bon boulot. kon gratification la moom nga bëgg wax il a eu une gratification après avoir fait le job. Euh, wala peut-être même sax def ko def ko daf ko daf ko kii daf ko bunkeriser. daf ko bunkériser parce qu'il aurait pu le laisser peut-être qu'il aurait pu faire encore beaucoup plus grave que ça et peut-être il s'est dit ne que donc il est grand temps que je change de ministère pour Antoine Diome et lui donner un ministère euh, lequel ministère il sera bon on sait que Antoine quand même c'est quelqu'un d'élégant même si dans ses propos quelque part il y a eu des dérapages mais quand il était ministre euh, ministre euh, de l'Intérieur euh, la plupart du temps c'était avec respect qu'il s'adressait aux gens. Alors qu'en est-il de de de, de l'ennemi coriace de ce gouvernement là et de et du précédent gouvernement qu'en est-il de de l'ennemi qui est le coût élevé de la vie yan levier la ñu mën la ñu mën a basé wu sukkandiku pour gagner ce combat là ont déjà perdu parce que y a également comme vous dites nii ni que y a un problème boo xam ne ni tous les Sénégalais sont en train de le vivre c'est quoi? il y a le problème de l'électricité il y a le problème même par exemple euh, des écoles yoo xam ne ni qui sont inondées il y a même le problème des militaires yoo xam ne ni qui sont partis à la retraite et qui aimeraient bien toucher leur salaire et qui jusqu'ici euh, n'ont pas touché leur salaire peut-être que avant ça mais il faut dire ne que y a de multiples problèmes yoo xam ne ni qui sont entre les mains de Macky Sall et il faudrait forcément qu'il y ait à chaque fois que de besoin euh, pro, euh, euh, euh, euh plutôt étaler benn genre Euh, mystique de pratique boo xam ne ne peut-être que ça va apaiser un peu le, la la population mais quoi qu'on dise également c'est que il y a des multitudes euh, des gens yoo xam ne ne qui aujourd'hui ne sont pas contents du président de la République ça il faut le dire il y a des gens qui le disent tout haut et puis sans se sans sans gamberger donc ça veut dire ne que jusqu'ici les choses ça que jusqu'ici les choses les choses sont là Donc les choses sont là, mais il ne faudrait pas dire mais que peut-être qu'avec euh, ce changement qui a eu lieu, peut-être que les choses vont s'apaiser, peut-être on le souhaite, mais parce que nous sommes tous des Sénégalais, on le souhaite. mais pour le moment, il oui. ne faudrait pas dire que tout est réglé. Voilà, sur le également, euh, oui. Fatou Abdou, c'est un combat euh, perdu euh, par le précédent gouvernement bu yees bi ñëw moom la ñu tegaat encore ci quatre points stratégiques yi nga xam ni premier ministre bi dévoilé na ko. Evelyne boo gisee boo gisee la la forme du du gouvernement à quatre mois de la présidentielle euh, euh, euh, ñun ñi amaana dinañu am du ñu am yaakaar que day nekk un gouvernement de combat et de mission wala pour la mission et les politiques man loolu laa jàpp c'est-à-dire que gouvernement de mission politique parce que maanaam tabbin bi la xam nga doon na am ñoo xam ne bu ñu leen tabboon di nga jàpp ne ñii kat dañu am xembemteef ngir li nga xam ne moom la ñu wax ñu def ko parce que li mu wax ci sunu souveraineté li mu wax ci vie chère li mu wax ci li nga xamante ne moom mooy xëyu ndaw yi li mu wax ci agriculture wax ko ci santé je pense que Amadou Ba a dit la même chose mm-hmm. ci premier gouvernement wam muy allègement bi nga xam ne waroon nañu ko def ci coût de la vie waxoon sax ci inondation yi wax ci ay points yu bari ñëpp gis nañu ne Sénégal heureusement Dakar que tawul taw bu tax peut-être ñu yegg ci yenn inondation yi ne kon dina jéggi dayoo ñëpp gis nañu les problème qui son la en terme des factures d'électricité la hausse mi nga xam ne nemmeeku nañu ko ci weer bi ak amaana weer bu ñu jëm et weer bu ko jiitu et toujours amul solution lu dul Senelec brandir comme peut-être euh, euh, euh, information wala peut-être pour wax ne cent milliards subventions yi moom la ñu jotatul sans pour autant sénégalais yi xamoon ko à l'avance moom moo indi la hausse des factures xam nga problème bu fekkee daf ko fi fekk tey ñu wax ne dinañu indi solution man awma ci benn yaakaar beneen bi mooy niñ ko taxa taxawalee parce que boo ko sentiree c'est comme si dañu jëm campagne électoral et maa ngi jeexal am na ci des frustrés qu'il faut quand même que euh, ne serait que pour une fois ma fexe ba bégal leen parce que yàgg nañu mu yële mayo boobu ba tey amuñu poste ministériel naa leen jox poste ministériel de l'autre côté également nga jël ay zone yoo xamante ne bu ci nekk def ko tenir en compte quand on prend Modou Diagne Fada qui a été candidat parce que loolu la déclaré woon mhm. que ne candidat à l'élection présidentielle Modou Diagne Fada boo ko jëlee il est de Darou Mousty Darou Mousty dafa am ñaari mbir yu ko yoo xam ne moom moom la àndal Darou Mousty déjà c'est une ville religieuse boo xamante ne tey mook Touba sorewul 400 francs moom moo koy paas donc. et là il faut remarquer que Touba n'a pas de ministre. amul malgré le poids électoral oui ah, amul ministre nga jël nga jël aujourd'hui Diagne Fada nee naa Touba ak Darou Moussi déjà sorewul mais Darou Moussi dafa nekk foo xamante ne. da nga mhm. koy laal ak fu ci mel ne Sagata. laal ko ak fi nga xam ne mooy Kébémer yaa Ngumba Ngeewul yaa entre autres localité yoo xam ne jaañ Fada peut ratisser large côté boobu noonu parce que amoon na fa doole ci jamonoy parti démocratique bu bu Sénégal oui amoon na fa amoon na fa quand il était au PDS amoon ci jamono ci parti bu Sénégal am na lu fa am ba tey ci ci foofu nga xamante ne moom moom mooy Daaru Musti donc foofu boo ko fa tegaatee moom mu nekk un allié mooy yow yaa ngi euh, bàyyi xel élection présidentielle bu 2024 bu baax a baax nga dem mbuur même bu fekkee danga dindi Sophie Gladima mais da nga fa teg keneen muy Omar Youm bu ah, Thiadiaye mu daal di jiite forces armées Omar Youm ministre la woon ci gouvernement euh, bu bu bu bu bu jiitu avant Amadou mhm. moom it ci ñi ñu génnee woon ñu toog ñu toog la ba ñu def ko député mu nekk groupe parlementaire bu coalition benn Bokk Yaakaar ci élection législative tey nga ñëw jox kooku gain politique ngay wut dans dans dans cette dans cette localité mais Daouda Dia Daouda Dia man depuis Daouda Dia ba ñu tegee assemblée nationale ba tey daaw Dia est questeur de l' assemblée nationale bañ na ko ba lu ñu mën a changé Daouda Dia du ci bokk questeur de l' assemblée nationale ñun ñëpp Evelyne discuté nañu ko en réunion de rédaction <laughs> coow bi fi jugoon entre Abdoulaye Daouda Diallo et le président de Macky Sall absolument coow li on parlait tout le temps de Arona Dia Arona Dia Daouda Dia mag ak rakk la ñu le choix de Daouda Dia c' pas du, du xam ne peut-être que pour fa nga xam ne foofu la Daouda Dia nekk